asalaamaaleykum bon tey ah Gambia Talents TV ñu leen fi nekkaloon su tey ah dañ ñëw ci nekk buusu bi waxoon nañ leen ah gaay génn saya génnuñ bi su képp ku ci fekk rek saya dañ la arrêt su ñu ngi nii fekk fi ñi nga xam ne ñoo nekk wéef ah gaay ngi nii ñu ngi noonu di leen di yóbbu fi nga xam ne mooy si pick-up bi ak jaaykat yi parce que ah dañ leen saya ne ñu jógee fi gaay jógee wuñ fi su ah PRO mu ngi nii fly over bi rek dañ laa ay yóbbu parce que waxon nañ leen ne e fii du bantaba fi du toge kay bot gaay ñëwaat nañ fekkaa leen fii nii so yéen a ngi gis gaay ñu ngi éeg noonu ñu ngi ba ya ñom ñep ñu ngi ek ci kaw fi nga xam ne mu nekk bi na mo a ko bi kaw bi ngeen ànd see gamel sene si ñu leen di kefalu keppalu nekk di xew yéen a gis gaay ñu ñu leen di ek ci kaw pick up bi bi ngeen di gis ni gaay gaay yi bàyyiwul kenn fii nii na to, bu si bi si flyover bi leneen amee woon fii nii waaye ah, ba tey rek gars yi nangu wuñ so ñoom ngeen a gis nii si koppi koppi ah, ak ñi nga xam ne ñoo nekk jaaykat yi ak ñi nga xam ne dañ day ñëw rek toog fii nii ne ah, am na jaaykat sax yi nga xam ne ñoom dañ day ñëw toog fii di ataaya soo ñoom yëpp lañ nekk di aras képp ki nga xam ne nekkul di liggéeyee fii si flyover parce que ba léegi liggéey bi mu ngi am waaye gars yi nangu ñu alaaw gars ñu liggéey soo ñu ngi nii yéen a ngi ko gis noonu ñu ngi leen ëpp si kaw pick bi ñoom lañ nekk di yóbbu nii beneen pick la A ah, ñu ngi ànd ak yéen a ngi gis ni ngeen topp ñu rek ñu génne leen képp li xew topp leen Gambian Talents TV gis liggéey bi mu ngi ku door nga xam ne moo nekka ah, si bu si bi si ton table bi ñuy liggéey tali bi ak si ron fly over bi so wéef ñu ngi noonu ñu ngi leen a yóbbu fi xam ne moo bi parce que waxoon nañ leen ñu génn fii xam ne moo nekk si fly over bi si ah, ñu ngi liggéey ñu nekk di liggéey sa duñ dee comfortable parce que jaaykat yi ñëpp foofu lañ dee ñëw soo moto baa ngi ne leen ñu ngi leen naa yóbbu fi nga xam ne mu nekk bus bi police station Gambian Talents TV nekk leen fi a ah, ngeen ànd seen Nabiya Sarr mu leen di génne képp li nga xam ne moo nekk di xew si jamono bi ni a ah, ngeen seetaan Gambian Talents TV naa ñu ngi fii nga xam ne moo nekk ah, subi ah, police station ah, gaa ñu ngi nii di wàcca ñu jota arrest si suba si gaa ngi nii moo nekk waaweef ak ki nga xam ne nag moom day jaay li nga xam ne moo nekk moom mu ngi nii moom tamit dañ ko arrest ñoom ñu ngi noonu di dem fi nga xam ne moo nekk bu subi police station yéen a ngi gis gaa nii ñu ngi